suis entièrement d'accord ci li nga wax mm-hmm. parce que 2021 euh, bi ñu dialogué deux ans et demi dama ko doon waxtaan naan euh, c'est la première fois dans l'histoire politique ci ay concertation ñu def concertation bu jéggi euh, juróom benn weer yi ci ëpp en la moyenne moo doon benn weer ak genn wàll kon tey bu ñu demee ba président joxe ni leen le 25 bëgg naa ñëpp pare dialogue bi pare na de commission politique bi mujjee commencé. Mhm. pare nañu. ah bon nii nii actuellement nii. pare nañu. mais question mandat samedi la ñuy la ñuy def si finaliser seen rapport. mandat bi lu ñu wax si mandat bi. alors ci mandat bi ñoom ñëpp y compris ak société civile dañu wax ni euh, ku ñaa ko nekk rappeler position li ñu tënk mooy. Mhm. et dañu ko considère d'ailleurs comme un point d'accord. Mhm. mooy nañu respecter la constitution les lois et les règlements. mooy constitution xam nga kon loolu euh, mooy rek. bu fekkee li ñu wax la ñuy def mooy kon na ñëpp toog xaar. ñu dem conseil constitutionnel. mais loolu du risque. maintenant c' est un autre débat loolu nekkul risque. Euh, c' est un autre débat man xam nga foofu dama ci am position vraiment bëgguma ci bëgguma ci wax parce que man dama ci am position. boo xam ni maa ko njëkk a jël. muy lan xam nga kañ laa ko jël. Hmm. Euh, fé février xam nga référendum bi mars la woon. Hmm. ma def benn contribution. mars 2016. 2016 ah. ginnaaw bi conseil constitutionnel jébbalee président de la république mooy avis avis boobu. Hmm. wala avis de décision alors ci laa wax ni en l'absence de disposition transitoire euh, est-ce que mën nañu comptabiliser mandat bi euh, ci ci mandat yi nga xam ni au terme de la révision président deux mandat yi nga xam ne président dina ko dina dina ci am droit après hmm. ma ne ko parce que alors ko bo dama poser problématique ma ne ko alors que boo in boo boo boo boo boo defee disposition transitoire da ngay passer outre en fait euh, l'avis du conseil constitutionnel mu doonoon une problématique en fait l'objet de, de de ce texte dans le cadre de notre euh, euh, euh, mouvement à l'époque FRI Front pour la refondation des institutions c'était pour demander au président de la République de surseoir à la euh, à la consultation le temps maintenant mu mener en fait donc de larges concertations alors tey coow am na mhm. man dama ni sama position boobu laa yore mais aujourd'hui xam nga sur la question du mandat coow li bëri na trop mais en vérité fi ñu war a dellu xam nga mooy fan Mm. mooy président de la bi muy saisir la conseil constitutionnel ci lan la ko saisiree sur cette question là. Mm. donte euh, quand même au moins quand même sur ce plan là. il était de bonne foi. pour, il au moins au moins am na foo xam ne on ne peut pas de sa bonne foi parce que si vingt euh, article 27 dans le dispositif il avait prévu que ñu comptabiliser mandat mm. conseil constitutionnel ni ko loolu mënul ne en lui disant que euh, le euh, le mandat est hors de de la révision constitutionnelle léegi nag. est-ce que le conseil en en en xam nga mandat ñaar la c'est à la fois la durée et le nombre est-ce que maintenant conseil constitutionnel bi mu naan ko euh, cette révision euh, euh, ce ce mandat est hors de portée de la est-ce que da ko wax durée bi la. Hmm. puisque dañ la faloon pour sept ans. Ouais. ou bien dañ la est-ce que dafa jël à la fois la durée et le nombre. alors foofu pour répondre rapidement boo delloo ci saisine bi la saisine concernait non pas le nombre mais la et la réponse aussi du conseil constitutionnel dama bëgg nit ñi delluwaat ci décision conseil constitutionnel mooy bi muy conseil di prononcé wu daf ko def titre daf ko souligner def sur la durée du mandat donc le conseil a été interpellé sur la durée et il s'est prononcé sur la durée.